dem bég dikk bi wàññeeku bu baax mbeddi Dakar yi wane nan xar kanam bu nu tàmmul di gis ci altine ji oto yiy daw wàññeeku nan bu baax te foo geestu seen fa ay takk yu taxaw fële sa marché Sandaga li fi nekk ci jaaykat daanaka ñëpp a tëj seen bunt tey ci suba li ko waral mooy manifestation yi doon waaja am tey jii ci 10 jaaykat yi gaawantu tëj seeni boutique fii njënd meeg njaay mi lépp a taxaw te koñ yi bëriwul ñu fa nekk jaaykat yi ñuy romb wala sax dawalkati oto yi li fi daan nekk ci nit wàññeeku tey bu baax takk der yi di taxawal nit ñiy romb ngir mën a vérifier seen identité loolu waral am na ñu bëri ñun fi teg loxo. altine ji moo nekk bis bi pencum ndawu réew mi war a voter proposition de loi biy tax ñu mën a reporter élection présidentielle. ñi fare ci kujje gi joxe woon dig daje buntu assemblée nationale ngir amal fa ab manifestation waaye bëri takk der yi ci Dakar tax na ba mënuñoo amal boobule manifestation